Jules Diop moo mun a ware Amsatou Sidibé moo mun a wure règlement côte yi daw Tamalaaf ministre Marie-Mimi Touré président Khayton Kanya xëy na jaaxle dikk université yee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen titro di leen béggee bu wér euh, Macky Sall changé na gouvernement bi wala mun nañ ne def na réaménagement réaménagement lu lu ci bëri réaménagement la ci def am na nag changement je pense que changement bi déjà waxoon naa leen ko euh, giseel ngeen ko seen bopp euh, am na ñu bëri ñu mën a amee moo laa fooy jëlee information yi jaaxal nañu quoi <laughs> waaye moom ñu ma leen yàgg wax moo laa du leen jox ay fausse information bu mu tàmbalee wax ak yéen ba léegi ay mag a nga koy déglu ay kilifa ay xale ñëpp a nga koy déglu moyen d'âge yëpp a nga koy déglu moo laa musul nekk ci di leen fen musul nekk di leen di leen di parloter parce que juste dafay amuser la galerie wala dafay bëgg di wax pour nit di mun ko seetaan Mollah bu amul lum leen di wax doo leen ko gis bu amee lu mu leen di wax da leen koy wax te dara du ko teggi ci kaw suuf moo tax j'aurai toujours toujours toujours raison ci li may wax parce que du du ma waxantu te dama wutuma lu neex nit wutuma lu neex nit jéemuma di nëpp napp nit yi wala di tiital nit yi wala di gëmloo nit yi ay yor naa information extraordinaire fekk yoruma ko wala may bëgg woon nit yi ne euh, di leen jéem a influencer man dama leen di wax rek li am dem sama yoon donc voilà Euh, lu ma naan gars yi nan ngay ba xamee gars yi ne Lat Diop ministre des sport lay doon euh, ki nga xam ne mooy sàmm Ndiobène Ka démb waxoon nga ko moom mooy euh, ministre de l' agriculture moom moo remplacé waa jële ne mooy Ali bi Ndiaye donc ñu ci bëri ñëw nañ laaj ma mais noo def ba xam loolu exactement parce que faussé woo foofu noonu ci ni ngay wax looloo am ak ñoom Thérèse Faye et cetera et cetera man leen nag man damay sama sama gars yi ñi ngi ci biir nguur gi de sama gars yi may liggéeyal ñi ngi ci biir nguur gi toog ak ñoom ñi réunion ñoom ñii réunion ak ñoom ñii bind ñii bind ñii note ñii note bu ñu paree woo ma ne moo moolaa gars yi nga waajal li gars yi waajal lee gars yi waajal lii donc loolu laay indi rek jox leen donc souvent ak quatre-vingt-dix pour cent euh, bu fekkee Macky changé wu ko à la minute loolu mooy am quoi waaw bu dee Macky changé wu ko à la dernière minute parce que bu amul benn coup de rek li may wax noonu moom mooy am voilà léegi nag ñoom seen problème mooy kan mooy waxal moolaa kuy wax kan mooy tóob bi ñoom seen mooy su moo musa doon seen question kan mooy toog bi qui parle avec moolaa donc moo tax ñoom ñëpp dañ leen mettre sous écoute di leen topp pour xam mais bon on va débattre juste ci démb aussi am na benn wax bu ma leen wax bu am solo ma leen di rappeler démb laa ko njëkk a def ci sama live si bu dee bàyyi ngeen ci xel dama ñëw démb ne leen lan moo bu leen fàtte jëfinu ñenn ñi ba di leen sital ay tur bu leen fàtte jëfinu bu àdduna neex mukk ba ngeen fàtte jëfinu Antoine ñàkk jom ci lu ñaaw teef gi mu def àdduna bu mu ba ngeen fàtte jëf gu ñaaw ji nga xam ni Ismaïla major Fall def na ko fi àdduna du neex mukk ba ngeen war a mun a fàtte jëfu ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye démb gi seet lu ngeen démb lu ma leen di wax parce que xam nga lu tax dama xam ni gouvernement bi dañoo xam ni les les sénégalais sont amnésiques bu ñu meree mun nañ def lu ne mun nañ wax lu ne mais bu ñu giifee mun nga leen fa fekk ren di leen te noonu la Macky Sall liggéey ak ñoom day jouer ak ñoom ci seen tempérament bu ñu naq bu ñu mettee génn ci mbedd yi day def tekk di leen seetaan bu ñu daloo rek mun ñëw seen kaw noonu la mës a ak ñoom léegi day effacer trace fu nekk nii Antoine ñàkk jom bu ñu ko santee mu war a liggéey liggéey bu salte liggéey na ko bu salte salte ñëpp nekk di saaga Antoine ñàkk jom amul lu mu déggu Macky Sall changé na ko stratégie boo xam ni dans deux à trois mois gars yi fàtte waxi Antoine ñàkk jom parce que dootuñ ko gisati mu jàkkaarloog ñoom dootuñ ko gisati muy wax ñuy delloo bu boobaa nag dañuy commencé di ko fàtte di ko fàtte di ko fàtte ba fàtte li fi Antoine ñàkku jom defoon yépp moo tax Macky Sall des fois di changer stratégie di changer ay nit ba nga xam ne tey day jël Antoine ñàkk doom mu dem def lu salte mu dem yónni Ismaïla Madior Fall ñu def lu salte ba adduna yëpp xam ko nekk Sénégal di jëf-jëf yu salte ba adduna yëpp di wax ba kenn joxatu leen confiance ñu mu effacer trace yi yóbbu leen feneen foo xam ni mun nañ fa toog continuer li ñuy def te kenn dootul coow ci ñoom parce que Sénégal dootuñu leen gisati nii jaxaran di ñekk ak ñoom jàmmaarloog ñoom di wax donc dañuy commencer di leen fàtte parce que ñoom xam nañ ni le peuple sénégalais et très très très amnésique loolu moo tax démb ma leen di fàttali ne bu mu neex mukk ba ngeen fàtte parce que mu ci laa leen doon indil naa leen euh, euh, mémoire ngeen wut ay mémoire d'éléphant ci laa leen doon wax naan ngeen am mémoire mémoire euh, historique moo tax démb may moo indil leen mémoire historique un peuple dafa war am ay mémoire historique di garder ay mbir ci biir boppam di ko jéem a xool équation yi nan la koy résoudre mu bañ a doon pëpp peuple d'animal boo xam ne lu ñëw ñu leen suba ñu fàtte ki leen rayoon démb bu yoreete paaka ne yor ngooñ ñu dem topp ci ko loolu euh, éléphant rek moo ko dul def éléphant boo ko defee dara cinquante ans tank que faywul du la bàyyi loo tax ñu naan mémoire d'éléphant mais bu dee le peuple sénégal la dañuy mel ni benn troupeau boo xam ni ki leen doon jéem a rey ñu rëcc am ñu rey ci ñoom day toogaat tuuti mu indiwaat ngooñ nëpp paaka ñu ñëwaat comme ay xar wala comme ay bëy donc il faut ñu am ay lu ñu naan euh, euh, banque de mémoire historique denc dara ci suñu bopp garder ko fa topp parce que loolu moo waral tey ngeen di gis far ba Senghor di toog ci ay médias di wax en 2010 ñi ko fekkee xam nañ ni jamono jooju Farba ba ni nuñ ko bañee woon noonu lañ bañee woon kii nga xam ni mooy Ismaïla Madior Fall niñ doon yàkkee Farba Senghor noonu lañ doon yàkkee Antoine ñàkk jom dañ sénégalais dañ ne woon Farba Senghor moom dinañ ko rendi dinañ ko ray ñu ko gisee woon comme kaña ci biir ville comme kaña deew kaña lañ ko doon bugg a def yuuxu sànni xeer nangam tey Farba Senghor mi ngi yor otoom di jaabante ci dem média par média di dugg fu ko neex kenn mbeju ko kenn dóoru ko kenn ñoppiti ko kon ñooñu sénégalais yi fàtte nañ li Farba Senghor defoon ci yëfu salte fàtte nañ li Farba Senghor liggéeyoon ci lu doy waar ci ci askanam ci lu mu leen tegoon ci ay naqar ak ay fitna ak ay mettit ak ay ay télé yu mu taal ay journaux yu mu taal ay nit yu ñu attaqué nit yu ñu dóor ay marto loolu lépp nguuru Abdoulaye Wade la te amul tey kenn koo xam ne subir nga conséquences yooyu bi seen nguur daanoo sénégalais yi ci lañ fàttee donc boo deful ndànk bu ñu yorul benn mémoire historique ñi leen di delloo li ñu dund traumatisme yooyu suba ñii nii ñii saaga nii am envie rey leen suba ñooñu ñooy nekkaat ci plateau yi di wax di wër rajo yi di wax même buñ daanoo di wër rajo yi di wax te duñ leen def dara kon day mel ni ñi dee perte wala ñuñ gaañe perte wala ñuñ lakk seen kër yee perte wala ñuñ tiir ay oto perte mais sénégalais duñ fayoontoo xëy na peut-être seen papa deew ci wala seen yaay deew ci kon nañuy fayantoo ak ñii nañ leen di delloo la monnaie parce que on a trop subi et on a trop souffert ci seeni loxo suñu njaboot yi dee nañ ci suñu njaboot yi ngi ci kaso yi suñu papa yi ngi ci kaso yi suñu yaay yi suñu frères yi suñu sœurs yi suñu tata yi ñëpp ngi ci kaso yi ak suñu frères yi suñu jarbaat yi suñu doom yi ñi ngi ci cimetière yi te ñi leen fa yóbbu weesuwul ñii fi toog tey mooy nguur gi donc waruñu mun leen fàtte benn yoon léegi nag comme ni ma ko wax ma ne réaménagement la dara changé wul c'est juste un gouvernement de combat un gouvernement de va en guerre un gouvernement boo xam ni Macky dafa changer juste quelque éléments mais tagaat ci post yi changer poste yi rek la changer ay kii yow wàcceel jouer défense yow yéegal attaque yow non loolu rek la def à part deux trois yu mu changer yu mu dugal ci biir équipe bi te wax naa leen ne leen Macky mooy nit boo xam ne ay nitu démbam du leen mus a bàyyi nu mu metti metti metti dina leen day ànd ak ñoom ba buy dee mooy koo xam ne du bàyyi bu jàppee tànk reyoo ko dalay rey kooku mooy Macky ku koy werante rek dangaa xamul kuy Macky Sall mooy koo xam ne boo ko reyul mu rey la boo leen tàmbalee xeex bëre muuma ak euh, euh, euh, xeexu muuma la ak ku tëx Pastef ak Macky xeexu muuma la ak ku tëx Macky Sall dafa tëx du dégg dara du dégg jat waa Pastef dañoo muuma lu tax ñu muuma mooy ñoom xam nañ ni waa ji ñi jéem a waxal ni du dégg dafa tëx ñi bëgg a ñëw wax ak moom ci ay loi ci ay règlement ci ay droit mais waa ji musu leen faale moom pour moom ñii dañuy mais moom musu leen lijjanti moom dafa moom dafa jàmmaarloog Ousmane Sonko ne kii dama ko fiy jëlee dama ko fiy liquider ak képp ku ko ànd ak ak képp ku mu àndal. donc dafay mel ni xeexu muuma la ak ku tëx Macky Sall mooy ku tëx waa Pastef di ko muuma nag yaakaar naa nag ku tëx moom booy bëgg a wax moom boo bëggee wax moom da ngay boo ko mbéjee mu dina loxo dina xam ne yow ngay wax wala boo ko songee dina xam ne yow moom ngay waxal waaye gars yi dañoo nekk ba léegi ci waxi droit ak loi ak justice ak ci kaw loolu ñu ci profité ne waa Ziguinchor ñu ngi leen di woo suba à huit heures au palais de justice de Ziguinchor ñu taxaw fa fas yéene mat un million de Ziguinchorois de Casacé des jàmbar la terre fertile la terre nourricière mère des hommes qui est la Casamance la terre des hommes intègres ñu ngi leen di woo suba incha allah à partir de huit heures ci tribunal ba na ngeen fa fees tepp ba kuñ sànni mbàtt mu tàkk liñ ñi def Dakar bu leen musa nangu ñu def ko seen dëkk seen dëkk dëkk bañkat la dëkk jàmbaar la fàq tëdd dëkk ñoo xam ni dëkk Aline Sitoé Diatta la foofu rek moo bokk ci dëkk yi nga xam ni dëkk waa dëkk yi dañoo résister pour la la contre la France foofu kese fépp fu France mus a jaar yomb na ci moom sauf la terre euh, euh, des des résistants la la terre des des des des braves euh, citoyens foofu tubaab ba yombul woon ci moom metti woon na torop ci ay loxoom balaa mu naan day jéem a accaparer la Casamance. loolu moo tax boo gisee ñu naan ay am na rebelle parce que ñenn ñi portugais fi ne woon ñenn ñi parce que France musu ko conquérir terre boobu noonu. c'est benn terre boo xam France su ko conquérir ba mu récupérer fépp foofu rek ko ko jommaloon ba tey nag seeni set a ngi foofu la terre des hommes intègres kon nag li ñuy li Macky Sall mun a def dakaar ak li muy jéem a liquider Ousmane Sonko dakaar jàpp leen ni ñëw na si yéen nag te foofu lay teralee parce que ku mu ñëw ne da koy rey ci seeni loxo kooku noonu daw na ba ñëw ci ku mu ñëw ne da koy rey ci seeni loxo kooku seen doom la ku mu ñëw naan day rey ci seeni loxo kooku seeni mbokk la que mu ñëw naan day rey ci seeni loxo kooku yéen a ko nàmpatal que mu ñëw naan day rey ci seeni loxo kooku seen meer la kon nag taxaw leen farlu ne kenn du fi rey suñu doom kenn du ñëw suñu kër rey fi suñu doom tëral ko rendi deret bi di fendi kenn du ñëw song suñu euh, suñu doom wala suñu meer ci suñu biir dëkk bu fa toroxal bu ko fa rey donc euh, ngeen góor góorlu ci loolu ngeen góorlu bu baax ci loolu voilà <laughs> am na benn waaye nee na ma Mollah yaa ngi lobbying gars ñi leen di fal koi doo ñu dimbale ñu nga lobbying ma ñu fal ma <laughs> nga lobbying ma ñu fal ma <laughs> mu ne ma doo nit Thérèse Faye falu na te yaa ko fal yaa ko lobbying ki nga xam ne moom mooy Eh, eh, eh, sama sama waa ji waa LONASE ba nee na man maa ko lubing lu ma lubing man loolu laa xamul de <laughs> am na daal benn autorité bu ma yónni message mi ngi nii message yaa ngi dal nee na ma ngir yàlla dooma lubing ñu jël ma waaw comme man lubing naa Thérèse ba ñu mujjee dugal Thérèse Faye ci gouvernement lubing naa <laughs> lubing naa Lat Diop bañ dugal ko ci gouvernement ba euh, euh, lobbying naa Samba Ndiobane Ka bañ dugal ko ci gouvernement am nee na ma ma lobbying ko kon maa ngi ñëw lobbying la grand maa ngi gis naa message bi jot naa message bi naa loolu lobbying incha allah <laughs> voilà <laughs> Biram Fay aussi moom ma nga fa ba léegi <laughs> dinaa xool nu ma après ñu waxtaan ci suuf ma xool nu ma la dimbalee bañ lobbying la lobbying la xeexal la bañ dugal la d'accord amul benn problème léegi waaw ñooñu ñëpp dugg nañ man kay Lat Diop damay damay tontu fi message bu ma yónnee Lat Diop fa Thérèse Faye fa ñoom ñoom biram fay xotu yaa baa ngi fa yooyu yëpp a ngi fa yooyu wax naa leen démb yaakaar naa ni gouvernement bi moom eh, man maa ci wax ñoo xam ne ñii dinañ ca bokk ñu bokk ca voilà euh, encore une fois comme nu ma leen doon waxee ñu kon ne li ñu doon wax euh, di wax ni le peuple casacé euh, la balle est dans votre camp le sort de votre mère de votre mable fils est dans et entre vos mais et dans vos mais sauver la et que je pense suba bu déclenché woo foofu Sénégal dans sa globalité dinañ radicaliser la lutte du yéen yéenay l'élément déclencheur pour déclencher ce combat tant attendu par euh, la souveraineté nationale par le peuple sénégalais digne intègre ñëpp a ngi leen di xaar foofu bu ñu fa defee lu naka sudul bu ñu am jàmm bu mu doon juge bi bu mu doon magistrat bu mu doon procureur na ngeen ko boyal ba mu boy na ngeen ko mokkal rumbax et que ce moment là à deux mille centièmes près na peuple sénégalais bi yëpp jóg Dakar Kaolack Diourbel Fatick maatam podoor bu kenn bàyyi on continue cette révolution qui ne s'arrêtera pas on n'appelle pas à une révolte ou à une révolution wala révolte sax moom mooy ña am ñaari fan le Sénégal n'a jamais Euh, fait une révolution une révolution moom mooy di xeex dara ba changé ko completement loolu la ñu woowee révolution leneen lu dul révolution révolte la et indignation ñun musuñu def révolution mooy jog di xeex di xeex di xeex comme lu Mali def ba président ba daw ñu changé révolution mooy comme lu Guinée def di xeex di xeex di xeex ba jëlee fa révolu moom mooy dindi mooy teggi il faut que ça soit clair le Sénégal musul def révolution ñun seen jeunesse suñu def révolution révolution mooy di xeex di xeex di xeex ba jëlee fa di xeex di xeex ba dindi fa di xeex di xeex ba dàq di xeex di xeex ba teggi fa loolu mooy révolution tant que loolu amul teggi bi bu amul dindi bi bu amul révolte la tudd révolte mooy tàmbali arrêté révolte mooy tàmbale deux jours trois jours nga dem nalawi cinq jours wala un mois dix mois donc nous loolu dañ koy déplorer donc bu fekkee suba euh, Casamance basculé na bu kenn taxaw bu benn région taxaw rapidement na radicaliser wu dans toute l'étendue du territoire ay sur toute l'étendue du territoire national voilà euh, fullaa jaay daqaar mbaama ñam jeexal ko ñun ñoo war a yokk fulla yokk fayda léegi nag bon dañuy waxaat rek Sidiki Kaba ministre de l'intérieur yéen ñëpp xam ngeen Sidiki Kaba paa bu ñàkk fayda la paa bu ñàkk jom la paa bu mun a fen la paa boo xam ni il n'a pas froid aux yeux paa boo xam ni défendre na fi lu ne défendre na fi ay góor jigéen défendre na fi ay guin défendre na fi ay lesbienne paa boobu kenn xamul lan la amul diine naan sàngara la waa Tamba la amul diine naan ko la waa Tamba la paa bu ñàkk jom la paa bu ñàkk fayda la paa bu gëmul dara la day défendre góor jigéen day défendre cogg jàgg guin les lépp pa boo xam ne ragalul yàlla kon Macky Sall xam na lu tax mu ñëw teg fa Sidiki Kaba bu dee Antoine ak nu mu ñàkk fay rek ñàkk jom Sidiki Kaba mooy bàyyam ci ñàkkub jom mooy ki demoon Israël toog fa sol sol mbaxana juif ba di julli taxaw ca mur de lamentation ba boo demul Palestine de daf ne ñukk Palestine baytul maqdis ca jumaa ja demu fa dafa dem ca mille de lamentation ba ca juif yi ñu solo ko kopp kopp kooku noonu muy julli julli ju jullitu julliwu juif ya wan leen ni man gëwuma Palestine gëwuma jullit ya maa ngi fi ku leen ñépp a ko gisal donc kooku ab paa bu màggat la bu ñu xam bu nekk ta nekk Tamba bu ñàkk fayda bu ñàkk jom bu du boo xam ne day juutu ñu koy laal ci taat kon tey jii bu dee Antoine lañ doon xeex Macky dafa indi baayam kii mun na jur Antoine Sidiki Kaba Sidiki Kaba c'est la génération de no de nos parents les Moustapha kase les les les les Diallo maire de de de Tamba on a été là on a grandi man ci ay ñoom loolu loxo Sidiki Kaba xam naa ko bu baax a baax a baax y avait mon père là-bas y avait mon oncle euh, Moustapha Kassé y avait euh, les Djibi Cissé Djibril Cissé waa Tamba xam nañ li may wax Sidiki Kaba aw tekki fa woon dara amu fa woon tous donc tey jii la Sidiki Kaba mun a wax paa bu ñàkk jom la paa bu ñàq fayda la ay moromam yëpp yu nekkoon Tamba retraité nañ tey ji boo demee Tamba doomu Moustapha Kassé boobu di sama cousin direct moo fa nekk muy Mamadou Kassé booy bu ndaw kon Kaba coq ya weex na tàll tàll tàll tàll boo ko futti woon jaafa tuun gi mi ngi weex tàll coq yaa ngi weex tàll samay ñoom moromu papa la wala mu mag leen sama ñëw moroomu nijaay Moustapha Kase la te ba léegi ma nga ci nguur gi ndax ñàkk jom amul diine ragalul yàlla donc bu fekkee ni ki ngeen doon xeex mooy Antoine ñàkk jom mooy def yëfu salte Sidiki Kaba ka gën a xasaw Kaba kooku Kaba xam ngeen Kaba ah voilà ab duulkat la fenkat la salte la def ak a salte paa bu salte ndaya moo ngi noonu paa bu ma xam ci salte bu salte sax oho paa bi fu mu dugg day xeeñ ay saxu duus la Sidiki Kaba nous on le connaît on a été à Tamba on a grandi à Tamba Omar Youm yéen ñëpp xamuñ Omar Omar Youm député la woon Benno Bokk Yaakaar indi na ko def ko ministre des forces armées jël jox ko place su Sidiki Kaba Omar Youm xamul dara ci forces armées musul nekk militaire musul nekk policier musul nekk dara Omar Youm ak politicien la bu salte buy taxawaalu rek ay Tall Sall mu jël ko jox ko lu mu joxoon Ismaïla major Fall kon tey ji ku jaar ci justice ba ay Tall Sall da lay lekk yéen xam ngeen ay Tall Sall ci mun a fenn xam ngeen Aïssata Tall Sall ci mun a duur gis ngeen ko moom ak tubaab ya ba mu toogee dafa fen fen fen fen fen ba tubaab yi di ñàq naan mais kii fan la jógee ban planète la bàyyee ko kon Aïssata Tall Sall bi nga xam ne moo nekkoon ministre des affaires étrangères mooy bàyyu Antoine mooy bàyyu Ismaïla Madior Fall ci ay duul Ismaïla major Fall mun na duul de kii yéen ñëpp xam ngeen ni kii ab jigéen bu mun a fen dama lay won ni tey place yi dañ ko jox ku dàq ko duul Ismaïla Madior Fall ku mën a dul ku salta la mais tollul ci wee ay Tall Sall yéen ñëpp xam ngeen loolu tollu ko ci wee bu gis nga bu eh, Aïssata Tall Sall fu muy toog di fen Ismaïla Madior Fall ñi mu fa taxaw yéen xam ngeen loolu du lu ma leen di jàngal maire boobu dafa fen ba wengal musóor yi day duul maire boobu day fen bay bay day fen di joxot maire boobu mën a fen <coughs> weer boobu kooku moom dafa fen a fen a fen bu nuruwul nit salte caga bu bono noonu caga bu salte ndayam boo xam ni non moom moom la Marème Faye Sall naan ko may mu na may euh, euh, Mariama Mariama xaw ma <laughs> topp ko nag xolo comme génn topp maire bi te moo ko mag de Aïssata Tall Sall mun na jur Euh, Marème Faye topp ci comme kenn yow may mu ne yow dégg nga ah, non kii kii ku gën a salte nag la Macky Sall yóbbu justice ku fa dugg yàqu hmm, hmm, Aïssata Tall Sall ci garde des Sceaux ministre de la justice moom la wooye woon amin aminta aminta aminta <laughs> aminta da la ko wooyee waxu ko sax tudd mu am aminta nag ñu koy wooye aminta mais comme genn la dafa tàmm doxat ak day Aminta lañ ko wooyee ba est-ce que gis ngeen maire bi léegi tudd ma eh, bu ma wooyee Aminta buñ ko wooyee Aminta gis ngeen mu ne bul ma wooyee Aminta déedéet daf lay teg ñu wooyee ko Aminta mu nangoo muñ Aminta bi <laughs> ci laa ne maire bi kenn gënu ko salte ci kaw suuf xanaa buñ ne lay Aminta te tuddoo Aminta nga ne ko eh, eh, yow maram kañ laa tudd Aminta bu dee am nga jox maram kañ laa tudd Aminta kañ laa tudd <laughs> Aminta Aïssata Tall laa tudd Aïssata Tall nga ne Aminta Aïssata Tall Sall nga naan aminta mais dafa ko de ñu koy aminta muy muy ñu ne ana ñu nekk fee ana ñu nekk fee non kon tey Macky tagal na leen fii ñu salte justice ba moom mooy yàqu na moom li Ismaïla Madior di ñëw naan ay compte max ak kenn ci ñax sax yooyu kii moom bu ñëwee ay duuli max lay indi duuli max pro xam nga kee compte max la yor Ismaïla Madior Fall compte max la kii ay duuli max pro la leen di tagal bu yàlla bu mu ñëw ba indi ba indi musóor bu weng bi nii toog def nii mel ni chinoise caw kooku ay duuli max pro la leen di jox sur le plat tant que ñuusu leen ndayam du du fa jóge moom mooy Aïssata Tall Sall léegi nag Ismaïla Madior comme def na fa yu salte effacé na ko du tax mu effacé ko fan la ko yóbbu ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur kooku doo leen ko waxtaanee kooku du bëriwul la li ngeen koy waxtaanee Sénégal fii ak 4 mois yi fi des nii fa leen di waxtaanee eh, Ismaïla Madior Fall li ngeen commencé ko fàtte Aïssata mooy ñëw jël wàllam nag di duwul ngeen Aïssata Aïssata muy fen Aïssata doo taxaw ay Aïssata muy fen di duwul di dajale ngeen fàtte Ismaïla Madior mu nekk moom ministre des affaires étrangères kon na fata moom fii lañ ko indi moom pour pour élection yi <laughs> élection affaires étrangères yi moo ko war a gérer mu moom changé et cetera changer euh, ambassadeurs yi changer conseil ak yooyu pour préparer ñu jàmmaarloog ñun fii mais fii du fi am dara moom xam na loolu kon moom Ismaïla major Macky daf ko def rek pour mu fa ñu fàtte ko moom xam na ne fii ci Babylone fii ci extérieur munu fi am tous tous tous léegi nag mu changé ko indi ko fii duul duul max pro nag mu jox leen ko yenn nag fas ngeen jàmmarloo ay Aminata Aysata Taal Sall le Doul Max Pro comme ni ngeen di wax ay Conti Max ak euh, euh, xaw ma laa ne Max <laughs> vietnamien bi nag ñëw na jàmmaarloog yéen ngeen xool loolu lañ koy lijjantee voilà. ki nga xam ni mooy Mamadou Moustapha Ba kooku mi ngi même chose ministre des finance et du budget kooku moom mi ngi ci coin doo ko dégg mu wax doo ko nekkul ci politique bi xam nga moom sincèrement moom dafa ñëw pour liggéey waaw. quoi qu'on en puisse dire Mamadou Moustapha Ba moom def na 30 ans ci ci ministère di finances et du budget 30 ans directeur du budget def na ko moom gouvernement yi fekk nañ ko fa jàngam la def Prytanée militaire waa waa waa Nioro la jàng la carriériste la def carrière rek lay def boroomu bopp la kooku moom ak loo bañ bañ bañ nekkul ci politique newul ci yëfu santé doo ko dégg ci ay mbir mu ngi toog coin jàng na jaar Prytanée militaire génn ay diplôme ma nga ca économie ak finance moom kooku kenn bougé lu ko fu mu taxaw ma nekk waaj ñëwaat na encore bu leen ko fàtte kanati la Mamadou Mathioutou Faye waxoon naa leen ni Macky Sall nekk na koo xam ni bu la enelee jóg ne day xeex ak yow boo ko reyul dalay rey amul du nit bu ñuy négocier du nit bu ñuy parce que ene rancunier la rage la loo ko defal ci lu baax dina la ko delloo ci démbam bu mu mettee ci moom waaye loo ko def ci lu bon dina fayu wala bu la jàppee ne day xeex ak yow sawaay waay buñ leen attewul dalay rey atte nag moom mooy comme jamono ji mu jógee ba léegi deux mille vingt et un jàmmarloog Ousmane Sonko peuple bi rek ñoo ko mun a atte mais bu ñu peuple bi taxawee deux minutes yóbbu na Ousmane Sonko ca kaso ba yóbbu na Ousmane Sonko di ko jéem a dindi ci list électorale yi donc mooy ki nga xam ne waxoon nañ leen ni Macky Sall mooy nit boo xam ni boo ko defalee lu baax ci ci njëlbeen ba dala koy delloo waaye boo ko mattoon wala ñoppati jamonoy booy tànka deewul day fayu toxoon naa leen boobu ba ngeen tàggoon ko di dugal di di ree man leen Macky Sall mooy koo xam ne jamonoy primaire sax boo la doon foo nga pàddu ko balaa récréation bi jeex dina la pàdd ngeen di dàqante bóori bóori du du xool kenn yow lay topp parce que yaa ko pàddoon tant que pàddu la du la bàyyi noonu la mel bu màttee day ragg waaye boo ko defaloon lu tuuti dala koy delloo lan moo tax boo ba léegi gouvernement bi Mamadou Amadou Mansour fay lu ne yàq nañ ko ko lu ne def na ko ci lu ñaaw mais mosu leen ko gis mu daane ko da koy changé rek wala teg ko fu mu ko tegoon waaye du ko fa jëlee ndax démb ak bërki démb ba muy metti mu euh, euh, bëgg Euh, soxna euh, waa kër googu xeeboon ko ki nga xam ni mooy Amadou Mansour fay moo ko fa xajaloon moo ko newoon avocat di ko kaasal ba mu am tey moo tax mu delloo ko ko malgré que dóor na mille milliards fonds Covid moom Amadou Mansour fay dem na ci siège ak SDE tëgg fa ay milliards indiwaat na ko transport logistique yeeg infrastructure yi oto yaa ngay mbëkkante des centaines de milliers de morts mais su ko wàcce parce que tout simplement moom moo ko ca génne woon ca bu muy dem ndar gi di doxaani ñu ko fay jéppi ndax xasawaayam ndax ñuulaayam bu didim ndax ay laxam yu rëy yi ndax ñaawaayam loolu ki nga xam ni moo ko ko fa défendre woon muy Amadou Mathioutou Faye moo tax depuis boobu ak lépp lu Amadou Mathioutou Faye mën a def ci scandale saa yu gouvernement amee da fay tegaat parce que loolu démb la ak bërki démb loolu yaakaar naa bu ngay gisee turam yéen ñëpp xamoon ngeen ni gouvernement bi euh, ñooñu ma leen waxoon duñ fa jóge boo leen di suivre li ma leen di wax doo leen mus a juum ma ne leen ñi nga xam ni démb ak bërki démb lañ seqoon ak moom ay teranga du leen fa mus a jëlee du leen fa mus jëlee kooku waxoon naa leen ko n'est-ce moom mooy ki mel ni Amadou Mamadou Mansour fay ku ci mel ni Serigne Mbaye Thiam indiwaat na ko bu leen fàttaliku l'histoire de Serigne Mbaye Thiam mooy Macky ba muy doxaan xale boobu noonu ma jabar ja yëg ko ca pale ba yëg ni ma dafa jël benn gel def ko muy ministre Macky di ko dóor ay rendez di ko yóbbu ci kaaw ba di ko tëddee Marème fay yëg loolu dem créer problème boobu noonu indi coow la mu dem wax Serigne Mbaye Thiam ne ko demal nga ne yaay jël xale bi Serigne Mbaye Thiam dem ne Marème Faye maay jël xale bi sama xale la effacé euh, Macky Sall foofu loolu moo tax depuis boobu fu muy organiser rek dafay teg kii naan Serigne Mbaye Thiam gis ngeen ko Serigne Mbaye Thiam ministre de la euh, ministre d'État euh, ministre de l'eau et de l'assainissement kon nag gis ngeen histoire boobu raconté woon naa leen ko parce que loolu contrat boobu la si ak moom amul fitu jël Serigne Mbaye Thiam naan da koy dàq parce que fu ñu jot a jaar la ñoom ñaar ci xale boobu nga xam ni dañu dañoo jàppoon Macky mu génne ko ca bokk lak ñi nga xam nag dañ leen fa teg ndax politique. parce que bu fekkee day jéem a éliminer Ousmane Sonko Casamance day jéem a teg foofu Doudou Ka pour mu récupérer maximum loolu c'est politique. loolu c'est pas c'est stratégique politique bokkul ak ñi nga xam ne daleen leen di fayee la ñu def démb ak lañ ko génnee ci ay ay treble pass ci ay problème man ay ñoom duudu kaa loolu tout ça ça politique ay ñoom njóobeen kaa njóobeen kaa kooku c'est politique loolu ay stratégie politique la dem benn lieu bugg a xeex ak sa benn waa ji mu jël jël njóobanka teg ko fa pour mu mun a xeex ak Ali Njambi Njaay mu dem jël duutuka yóbbu Casamance pour mun a am fa mun a récupérer le maximum fële parce que Ousmane Sonko bu a kon yooyu sa stratégie bokk ak ñoo xam ni euh, dama dama iri sama gel bu ko tëddee aw ma néeg nga abal ma néeg man yooyu laa leen di wax mooy ñi nga xam ne dafa iri iri gel amul fu mu ko dugal ñu ubbil ko néeg ba jox ko wala mu xóoj nekk kaw la sonn bay bëgg a dee amul fu mu bàyyee ay janaxu euh, bajom ah, eh, <laughs> ki nga xam ni mooy Mariama saar ñëw nekk ubbil Mbarké Ndiaye acca dëxintaat bu yàqoo ma defaraat dëxintaat donc loolu moo tax kooku nga xam ne dimbale na ko mu vidé ay ay xuuram ba mu viddu mun a libre mun a firi muy euh, Mariama Sarr kooku depuis bu Macky Sall toogee ba léegi Mariama ngi à côté ba léegi tey ma nga fa ba léegi jëlewu ko fa gis ngeen loolu Omar Sarr ñooñu ministre des mines de yooyu c'est politique ñoom Omar Sarr ak ay ñooy Victorine Ndeye yooyu se politique mais ñi nga xam ni seq naa ñoom démb ak bërki démb laa leen di wax mooy ñoom Serigne Mbaye Thiam donc dama leen bëgg a rek ne ñii xam ngeen ni duñ génn ci gouvernement bi dëgg la wala ñi ma leen wax ne leen Macky Sall boo ko defalee dara bu yàgg ba dala koy delloo ba ngeen di dee who goes around comes around exactement donc foofu rek laay wax ak yéen ne leen am na ñoo xam ni yéen xamoon ngeen ne duñ fa jóge da leen fay bàyyi parce que lu mu seq ak ñoom la démb ak bërki démb foofu laay wax ak yéen rek ne leen gouvernement bi yéen normalement boo leen doon déglu lu may def ci live waroon ngeen bind ay tour kii moom du fi jóge kii du fi jóge kii du fi jóge kii du jóge bu sénégalais ñooy laaj la lan moo tax ngeen ne ah moo laa ne kii moo ko doon boxomal ay xuuram ba mu mettee muy Mariama Sarr ñu ne nga ne kan nga ne euh, Mathioutou fay mu ne Mathioutou moo ko doon sauver di ko protéger ca ba muy doxaane bu buñ la buñ buñ la waxee yu mel noonu buñ la waxee tey Serigne Mbaye Thiam Serigne moo bu ko Marème fay jàppee ci gel ba Serigne Mbaye ak ci génne et cetera et cetera loolu am na yoo xam ni moom normalement boo leen di suivre live bi war ngeen faa mun a xam ni ñii Macky du leen fa jëlee c'est parce que ñi ngi koy liggéeyal liggéey rafet donc lu ma ci lu ma leen mën a wax rek mënuma kii lépp lépp lépp lépp lépp am na ay Victorine Ndeye ay ñoom euh, euh, Pape Malick Ndour et cetera et cetera Thérèse Faye moo ci yokk Thérèse fay moo ci yokk léegi Thérèse Faye boobu noonu lu tax parce que yéen xam ngeen ni wax naa ko Thérèse Faye démb wax naa leen ko ne leen Thérèse Faye da ci bokk Thérèse waa Fatick la te Thérèse dafa yàgg nekk fiisu Marème fay Sall ak Macky sàll couple boobu ca fatik waaw Thérèse Xemes Faye lañ ko doon woowee Thérèse Xemes Faye Thérèse Faye ñuuloon na lool sax lool sax xaw ma nag ba xam léegi taxawaalukat la woon it caga bu bu oyof sër la woon bu oyof sër a taxawaal ñu la na de la nuit ñu naan ko xemes xasawoon na sonn suba ngoon pour wut lu mu lekk dana ñëw kër ñoom Marème fay Marème fay di ko yónni mu koy di pour mun a am sandis bu mu lekk wala sonnoon na loolu ca fa teg voilà donc Thérèse Faye dañ ko delloo li nga xam ni yàgg na taxawu Macky Sall ca Fatick yàgg nañ et cetera et cetera loolu moo ko may lii nii nga xam ni moom la ko fayee koo euh, tey la ko fayee euh, borom këll yàmbaaga yak mu ngi ci biir borom këll yàmbaaga Macky Sall comme yàgg na dégg tamit lu ñuy wax yàgg nañ wax ni démb wax naa leen ko Sénégal moom musa nekk dëkk bu am ministre auprès du ministre ki nga xam ni mooy ministre de l'intérieur mu jël ki nga xam ni mooy Birame fay def ko ministre auprès du ministre mais comme Macky Sall nag tamit ak nu mu mën a demee sañ xeex bi am na ay effet moo tax arrière na dindi na ministre auprès du ministre parce que waxoon naa la ministre auprès du ministre existé ki nga xam ne mooy Birame Faye Macky Sall da ko jox ministère bu existé wul amul bureau amul ministère amul dara lan moo tax mu defoon ko loolu nag pour mu mun a jàppale Antoine ñàkk jom ci armement yi mu koy jox pour recrutement wu nervi yi pour recrutement wu ñoom ñooñu la ko jox pour moom Macky la pour ne ni jeexal na ci xeex parce que loolu lañ may wax ñoom ñëpp buñ ma waxee ñu <laughs> moo laa yow ban xeex ngay waxati yow xeex dootu fi amati man la xeex du fi amati billaay xeex du amati man la loolu la ñuy seet donc ñoom boo gisee mu dindi léegi ministre auprès du ministre parce que jàpp nañ la loolu jeex na jàpp na ni ñoom xeex dootu fi amati te saa yu ma waxee wa gars préparé leen waajal leen bu ñu ñëwee dañ may sayite dañuy ñëw dóor seen i reetaan yooyu ñuy def ngex ngex ngex ngex ngex sànni ma ko ma ñëw xool <laughs> moo ban xeex ngay waxee xeer yaa ngi xaar xeex nii xeer du fi amati ma ma ne xeer xeer amati da ngeen di wax leen ne billaay moo laa xeex du fi amati man ah, kon fan ngeen foo leen ko teg ñu daal booy xeex du fi amati fii xeex du fi amati ah d'accord loolu lañuy ñuy donc ñoom naa ñu nañu xeex tubaab loolu moo tax mu jël ministre auprès du ministre mooy ñi mu joxoon armement yeeg lépp mu rocc ko tey ji génne fa ki nga xam ne moom mooy euh, Biram Fay toxkatub yàmbaa borom këll yàmbaa ga léegi Biram Fay nag génne na ko foofu ñëw na jox ko euh, mu nekk ministre délégué nekkatul ministre auprès du ministre mais borom tegkatu attaaya ga ki nga xam ne mooy Biram Fay moom lañ doon yónni muy attaaya warga naanaa suukar xelli Macky Sall ataayam rek lay naan loolu ca Fatick la ñu dem ba Mermoz ba université moom biram fay lool rek lay liggéey fokk romb Mermoz bunt ba ma nga naan ni xelli rek la bund furr furr furr sol costume yu mbàjj yooyu nga xam ne day génn nii day loqatiku oo ko fekkoon nag cinq degré Birame fay day soo costume mbàjj yuy loqatiku yi yi kii coton yi di génn danga nga naan mais <laughs> mais tamit Fatick la jógee Saalum lañ jóge Saalum dañoo dañoo tàmm tàngoor man comprendre naa ko parce que man mi doon dajeeg moom des fois bu ma gisee ak costume yu yu yu yu fu yu furéew yooyu noonu man mi sama bopp <laughs> tey fekk ma sol ngan daf maa mi bu mu gën won ni siin nga jógee ma jógee Saalum <laughs> voilà côté boobu moom mënu ko cee xas waaye daal xam naa ni Birame moom it Macky da ko da ko da ko da ko da ko primé tout simplement parce que euh, li muy ataaya gu neex ki kon euh, di ñaan gars yi bés bu ma doonee dara na kenn di ñëw teela ñëw di ma ataayal fu mu ne nii yéen may seetaan may ataaya di ñafe di lu ngeen may seetaan maa ngi xaar ba suba ma yàlla defee lu rëy ci réew mi ba kenn ñëw. naan da dara doo am ministre auprès du ministre doo am dara parce que kenn lu ma man ni ngeen bàyyi maa ngi nii di xel suba ngoon guddeeg bëccëg di ci rey sama bopp maa ngi xaar ba bés boobu kenn ñëw naan ma moo laa yaa ma ataayaloon Birame Faye euh, tey dafa xewlu parce que da doon ataaya tey lu mu am ataaya beeg ko may te pourtant maa ko fa doon romb naan golo gi moom du dem jàngi wala du dem liggéeyi boobu mi ngi may reetaan te attaaya googu moo ko may tey mu nekk ministre auprès du ministre tey jii Macky Sall jëlee na ko fa léegi def na ko encore mu nekk ministre mais sous une autre forme léegi ministre lan la sax Birame Faye ana mu sax mu ne sama copain boo dox katu këll yaa mbaaga léegi bon ana Birame waaye gis naa ko fi sànq de <laughs> ataaya ndekete ataaya day fay de si réew mi ataaya sax day fay waaw léegi daal tegal na biram fay fayeeku na ndax ataaya ga Thérèse moom lañ doon yónni waaw man biram xaw ma lu xam ci artisanat <laughs> mais Macky Sall dëgër fi biram artisanat nag <laughs> eh, biram fay <laughs> grand boobu lépp lu am toxee ko yaa mbaa xanaa war na ko bàyyi de <laughs> formation artisanat ataaya de l'emploi waaw war na ko mun a def de <laughs> artisanat nag biram <laughs> ah, biram artisanat ah c'est bon bon man de xaw biram fan lay def di xanaa këll artisanal yooyu noonu la la Macky Sall kii yooyu mu doon def yàmbaa mooy këll Baye Fall yi këll artisanal yooyu dërëm ak këllam ak ak rislaam dëkk bi neexul ko barke rasulaay Thérèse moom moom dañ ko doon ni moom Thérèse dafa doon ñëw kukk xasoo xunn Marème Faye di ko yónni muy dem ak a ñëw <laughs> moom tam ministre la kon grand bi may envoyé message naa ma jàppale ma ci sa lobby bi comme koo wax ñu jël ko mais grand gars yi du ku ma wax ñu jël ko de gars yi tam dañoo yàgg togg de mënoo toog foofu mënu ma fee wax bañ jël la dañoo yàgg cogg de il faut nga dem cogg il faut nga xool benn ministre wala nga dem kër Macky di bale même la waxul bul bale sax yow yore sa bale di bale rek yow nga ne bénévolat ngay def demal kër Macky Sall di bale di bale di bale bu jour benn jour ma dem mun na génn na eh, yow kii kii bale sama kër gi kan la nga ne ko man la Modou Ndiaye eh, ah yow Modou lan la ah <laughs> dama leen bëgg rek dama leen bëgg te yàlla bu génnee di la fay bul jël. bu la joxee mille nga non non merci merci non dama ko def te yàlla tax di dem chaque jour baleel bés dina mës ñëw léegi maram wala ne ma kii mooy bale kër gi lu ne jox naa ko ko mu bañ may naa ko fi dix mille mu bañ mille franc mu bañ nee na moom dafa bëgg di di kër gi parce que déchet waru fee am ak yooyu suba Macky Sall na laa def mais munoo toog noonu rek toog naa moo laa jàppale ma ci lobby non mun naa wax suba du la dugal sa bale dem buntu këram wis ndox mi di bale su ko am ngoon bu ñu la jox bul jël bu ñu la mayee bañal yow del def loolu rek pour moom bu la laajee rek man la muuru xulle dama leen a bëgg dama leen a jàpp te yàlla tax sama am fu ma toll ci yéen vraiment gis naa ni li nangam nangam del def rek léegi mun nga doon ministre balaa balaa affaire yi jeex mun nga doon ministre parce que ataaya ba Birame Faye du la ca bàyyi yónneente ba Thérèse Faye du la ca bàyyi donc bu ne nii xanaa nga jël bale ba xoolal rek wala nga ci xool leneen so ki stratégie laa la jox yow xalaatal lan nga mun a def loo xam ni waa ji bu yàggee mun nañ la récupérer dugal ci kër gi même bu ñu lay may ndox nga naanal xool nga xool kër gi nu mu demee suba nga ñëwaat ñu ne la noppalikul nga toog bu yàggee ci saal ba ngay mujjee bu yàggee léegi nga doon ministre affaire tam da ngay parce que grand bi foog nga koy defal ndax <laughs> foog nga koy defal de munoo toog foofu rek di grand bi wutul borom xam-xam de non Macky Sall du ay ko wut borom xam bopp ak yu ko ay mbalit lay wër mbalit ku mun a fen ku mun a def lu salte ku am sañ-sañu jàkkaarloog Sénégal di leen duul ñu moom yooyu lay wër ku xasaw ku tuxkatu yàmba naan ko sàngara caga drogué caga baar sulaar moom yooyu lay wut ku bañut dara mbaam xuux mbaam àll mbaam sëf moom yooyu lay wut xaj yooyu lay wut bu nga cee doon dara rek da am dara waaw loolu moom jéemal xool rek loo ci mun a doon rek jëlal ataaya wala nga dem ñu lay yónni wala nga six mois moo ci des nag ne mun nga mais mun nga doon dara moom mun nga fee doon dara Macky Sall suba suba mun na mooy premier sénégalais bu bu def gouvernement bu amul premier ministre Macky lu mu fi def musul am donc suba suba Macky Sall mun na daanawaat nguur gi tegaat fi leneen mooy premier sénégalais président bu def gouvernement sans premier ministre moo ko njëkk def Sénégal moo njëkk def gouvernement daane ko ay fan avant mu ko moo njëkk def gouvernement boo xam ni en fait lu ko ci lu <laughs> def na ci ministre auprès du ministre donc kooku suba mun na daanee gouvernement bi maa ko waatal ni li ma koy wax ni bu demee commencé bale këram Macky mun na daane gouvernement bi ndax pour teg ko fa six mois fii sax fii na ko commencé suba wax leen ko suba mu grand commencé jóg suba ngay jar sa bale taxaw di bale buntu kër Marème fay dans trois mois Macky Sall daane nguur gi jugalaat la fa teg la fa léegi nga doon ministre maa la ko wax <laughs> affaire bi du caaxaan de mais bu tey da ngay toog noonu rek non lobi mënu fa dugal moom loolu moom mun na lu dugal trois mois Macky lu ko neex la wutul ay capable compétence capable coupable la wutul ay compétence de capable coupable mënal duul mënal fen froidement jàkkaarloog gars yi rey leen ne leen reyu ma leen de dañoo daanu dañoo faxastalu noo kee moo leen rey waaw gis nga boo gisee ni affaire yooyu noonu yow xale boobu ñu teg noonu policier boobu noonu ñu koy kii mais ku leen ne garde wuñ ko xale boobu noonu ngeen gis mu toog noonu policier yi taxaw ñu kooku dañ ko garde police ku leen noo garde wuñ ko donc moom ñoo lay wër wërul ay ku sol costume naan ay yor naa ay cinquante diplôme il s'en fout parce ce que Macky Sall yoru cinquante diplôme yoru trente deux mille diplôme coupable capable lay wër ku mën a duul criminel mën a fen gis nga ñoom Antoine du leen mus a daane ñoom Ismaïla Madior dañuy taxaw nel la waaye compte max bi non mais xoolal compte max bi dafa kii yow dugal nañ ko max gis nga ay Aïssata Tall Sall max pro kooku bu ñëwee tey beneen max pro la lay wax max pro bi dugg na bu yàgg max pro bi kii nañ ko quinze max pro la pro max la donc moom yooyu lay wër ab fenkat lay wër ab duulkat wu jàngkat capable coupable point yow capable la rek mënul duul jàmmaarloog ñoom jàkkaarloog ñoom bu ñu demee ba Sénégal yëpp toog di seetaan eh, kii nga xam ne mooy Antoine ñàkk doom ne policier yooyu taxaw xale boobu ñu teg noonu ñu koy sànni xeer ku leen ne woon dañ koy garde waxu ko si conférence de presse ah Sidiki Kaba ñëwul di wax di duul naan waaye yow ñu dañoo faale CP yi ñun bu ñu inscrire CP suñu drapeau sax boo duggee CP suñu drapeau mooy premier mooy folote foofu. <laughs> donc te ci paa bu mel ni Sidiki Kaba mag Macky Sall foofu mu koy loo duul yu tal ñoom kon xam ngeen di kon gouvernement duulkat douleur gouvernement kàcc gouvernement coupable capable lañ soxla. donc mënal fen wala nga mën a dem foofu di liggéey rek di for di for feuille yi wala bale di bale buntu këram léegi nga am dara. voilà léegi nag Antoine ñàkk jom fan la ko yóbbu. ci pétrole beeg gaz bi quoi <laughs> mu fekk fa frère am ba voilà Frank ñànki jom xam ngeen Frank Frank ñànki jom xam nga maanaam Antoine ñàkk jom gars yi non mais mu nga turu jàmbur bi ñoom seen tur am loolu ñàkk jom ñànki jom magam mooy Frank ñàkk jom Souleymane ñàkk jom ñu naan ko Gilles ñàkk jom Antoine ñàkk jom ñoo bokk benn baay du ay waxantu ñàkk kii ñànki ñànki ku ñàkk kay ñànki bu Antoine tuddee Antoine ñàkk jom magam Franck tudd Franck ñànki jom ku ñàkk ñànki kay ñàkk ñàkk la tudd kay ñànki donc Antoine ñàkk jom son frère Franck ñànki jom son grand frère encore euh, euh, Jules ñàkki jom ñàkki jom ñooñu <laughs> mooy borom cuuraay ba Jules borom cuuraay ba <laughs> mais <laughs> gars yi bu leen ma wax la Jules Jules bàyyi naa ko noonu <laughs> bu leen ma dugal ci Jules Jules deful dara Jules deful dara Jules deful dara Jules waxuma de gars yi ñooy kii ñoo may indil fii ma damay liir Jules waxuma waaw parce que Jules man ak moom dafa jot jot waxtaan te vraiment bàyyi leen Jules quoi Jules waxuma dara dégg waaw kii laa Francky yow laaloo dara moom Jules ab tailleur la boo ko joxee mu daggal la ñawal la cuuraay yi jidda la koy jëndee ñu ko ko yónnee muy jaay cuuraay parce que buggul dugg ci alalu Sénégal buggul sàcc alalu Sénégal buggul rawale awal Sénégal nee na laalul daray Sénégal moom nee na moom ay rido lay ñaw ak tamit nekk ci jaayum cuuraay te cuuraay boobu pour mu jaay ko nee na dafa dem ba xombol jaay fa terrain terrain boobu weccet googu la jël yónnee jidda ñu ko fay jaayali cuuraay te ba ma waxee waxu cuuraay ba rocc na photo yëpp ndeysaan xam nga loolu metti na de dégâts collatéral la nee naa ko maa ngi jégalu dégâts collatéral la ku sonn bay dee jaay terrain am jënd ci kii investir yónnee ba jidda ñu koy jëndal hmm? cuuraay ak ak Bagdad xaw ma lan ñu koy jëndee di cuuraay eh, ma ñëw dóor Jules Rocce publication ma ko yàqal kon neena ko dellool publication yi effacé naa publication bi ne ko Jules maa ngi jégalu dellool jaaree sëb cuuraay bul laal suñu alal daal bul laal suñu alal bul sàcc suñu alal yow jaaree sëb cuuraay kon nag nañ ko bàyyi mu jaay cuuraayam waaw ku bëgg cuuraay nemmali kaani gongo fuddanu cuuraay yooyu Jules day jaay cuuraay jul Diome day jaay cuuraay voilà mi ngi noonu tailleur day jaay cuuraay ngeen jàpp jàpp leen ci cuuraay ji cuuraay kaani cuuraay poobar cuuraay kib magi voilà mais fii lañuy dugg ci Antoine Ñanki jom Antoine Ñanki jom di frère u grand frère euh, ki nga xam ni mooy Antoine Ñàkk Diome dama gis Juan Branco expliqué ne génne frère Antoine Ñàkk jom bi wax ci moom ci ay affaire contrat pétrolier moo nekk ni ñànki jom Frank ñànki jom mi ngi nii ak Antoine ñàkk jom Frank ñànki jom ak ñàkk jom Macky Sall yóbbu na ko ci pétrole ba mais pétrole bi nag beneen problème moo fa am Antoine ñànki Frank jom représentant wax naa ko ki nga xam ne mooy avocat bi jàmbaar bi muy xam naa mi ngay continuer ci recherche yi parce que orienté naa ko ci beneen piste muy sama doomu ndey Juan Branco ba mu ñëwee ba fa génne photo bi Frank ñànki jom fukki dërëm yoru ko c'est un représentant chargé de mission de Atepa ma ne ko Juan Atepa moo fa nekk Atepa moomu bu dee da ngeen bëgg a jàppee ji sàcc bi Atepa la mooy liggéey ak Australia compagnie pétrolier ak ay ay gaz yooyu ñoom ñooy liggéey moom moo leen fi indi bu dee dëgg rek ngeen di wër Atepa ci boppam moo ko fi moo fi indi australien yi ñu ñëw ci exploitation bi comme day liggéey ak Frank Ñanki Jom Frank Ñanki Jom représentant la marionnette kese la chargé de mission bu ki nga xam ne mooy Atepa donc pour muy clair ku jàpp Frank ñanki jom demal jàpp Atepa ña nga ca pétrole ba takk ca rëpp ña nga ca minier ba takk ca rëpp ba ma ko waxee loolu ba léegi sincèrement bàyyiwul ma nga topp affaire ya parce que <laughs> lu leer rek la ñu bëgg il a bénéficié d'un contrat minier Et il n'avait aucune capacité, ni financière, ni sur le plan de euh, l'expérience, euh, en violation totale sur le code minier, qui est Franck Niaki Diop. Ce qui est valable sur Franck Timis. Vous ne même Franck Timis, waajooju businessman la de faalewul ay affaire combat de ki ngeen gis nii mu muy euh, Pierre Goudiaby Atepa businessman la homme daffaire la farul Pastef farul fenn il est là que pour sa gël pour son tube digestif il travaille avec tout le monde pour muy claire day jël ay Franck Timis kan moo ko fi indiwoon du ko jaay bi Atepa kan la ko booleloon du rakk Macky Sall moo indi Franck Timis boole ko euh, ki nga xam ne moom mooy <laughs> Atepa la moo nekk foofu moo indi kii nga xam ne mooy frank ñànki jom mooy indi australien yi jël Franky Ñanki Jom def ko son représentant jox ko mu nekk kuy ki mi ngi ci ginnaaw nga ndam lobi la yor laa wax Atepa di dóor ay milliards ku topp moo tax ma ne ko ma ne Juan Branco Franky Ñanki Jom est juste l'arbre qui cache la forêt boo duggee ci biir nga jombi booy dugg ci biir di jombi Atepa nekk ci biir takk ca répp Atepa tey mu nekk architecte suba mi ngi ci contrat pétrolier yi contrat gazier yi mu ngi partout c'est un businessman c'est un homme d'affaires il est sans sentiment sans sentiment ce qui est valable sur Franck Timis même chose est aussi valable en lui taxi yaa ngi fi lépp lañ moom moo nekk ci ginnaaw c'est lui qui collabore ce fameux architecte la c'est lui qui collabore tout son temps avec <laughs> ses frères, ses époux, ses neveux, des autorités pour des intérêts personnels. Il faut le dire. Atepa est derrière, c'est Atepa qui est derrière. lu Frank Niang ki jom am rek Atepa ko jox mi il est derrière voilà du fay c'est un délinquant euh, fiscal du fay impôt Atepa du fay impôt Atepa mi ngi ci nguur gi de mi ngi ci nguur gi bu baax a baax ku ñëw mu ànd a yow ku ñëw du fay impôt mi ngi ci biir takk ci rëpp <laughs> yow Atepa di bu mag la voilà kii mooy carte de visite Frank Ñanki Jom moom lay joxe sax moom foo ko romb moom lay jox aka gaaw joxe ci euh, carte de visite bi moom lay joxe moom moo koy joxe kii moo ko jox sama benn copain bu mu dajal ci benn séminaire mu jox ko ko mi ngi nii Ñànki Frank jomm représentative chargé de mission 9 trait 46 48 Solende ST NSW 22 17 adresse la Australia téléphone plus 61 401 306 401 email dfranc arobase atepa point com site webam mooy 3w point atepa point com donc atepa ngi ci tax rëpp rëpp ku jàpp Franky Ñanki Diop mu yóbbu la ci Atepa après Atepa ngi ci takk rëpp laa la wax léegi nag fu nekk nii ne def nañ ko affaire de lobby léegi kan lañ fa yóbbu seen frère Antoine ñàkk jom kon tey la partage bi gën a mun a yomb donc léegi nag Frank daje na ak frère am Frank gis na doomu baayam baay lañu ñu bokk moom ak Antoine ñàkk jom Frank ñànki jom ak Atepa ah, dinañ nag séddoo comme nañ defoon sañu pétrole ba nañ defoon suñu gaz ba danañ ci delluwaat ci minier ba ak yeneen industrie ak yeneen yoo xam ni compagnie pétrolier et gazier yu mel ni ay Australia et cetera et cetera danañ def ni ñu defoon Frank Timis gars yi ils sont extraordinaires en matière de lobbying dañuy dugal loxo bii nga ne noo bu lekkee loxo gauche ñu rocci dugal loxo droite ils sont loxo goos la ñuy bëgg a tibbee yow nga ne noo bu lekkee loxo gauche mu jaar ci suuf loxo droite ba tibb donc jàpp leen ni tey jii la Macky la gën a globaliser leen pour ñu dem liggéey nag ci pétrole beeg gaz ba rawaleen le maximum parce que ñoom lu ci lu ñu rey seen bopp yépp pour bañ a daanu pour bañ fay jógee pétrole beeg gaz bi la ndax dëj di gën a boy boy ci la ñu war a doon ay multimilliardaires ñoom ñu teg ci seen bakkan ñoom ak la France en complicité ñu moo tax ñu organiser wu. mais dans tout sax ma ne la képp ku jàpp Atepa jàpp nga bandi képp ku jàpp Atepa jàpp nga ku maîtriser suñu pétrole bi loxoom takk ci rip muy indi ñoom Frank Timis di indi ay Australia di indi ñu ngi fii gis yëpp ay ñoom Frank yi jom ñooñu ñëpp. ki nga xam ne mooy Atepa la moom mooy le cerveau moom mooy euh, le commanditaire en complicité avec Macky Sall Atepa musul réeroog Macky Sall pour muy clair donc les gars di leen wax ni rek li wax ji yépp lu ko guddal lu ko gàttal mooy waajal leen seen bopp waajal leen seen bopp waajal leen seen bopp lu ñu leen wax lu dul waajal leen seen bopp dañ leen di nax man de loolu laay wax sama discours mooy ngeen jóg waajal seen bopp bu leen dara bett te bu leen nangu benn injustice bu leen nangu ñu leen di teg ay injustice bu leen nangu gars yi fi liquider Ousmane Sonko très facilement jàll ci leneen loolu musuñu ko nangu te du tey lañ ko war a nangu nee naa leen Macky Sall waruñu seetaan mu créer benn euh, élection bu muy sélectionner ñiy dem xalifa Sall ñu ngi naan fay na cinq millions yi il nous doit de l'argent et des comptes à rendre des terrains quand il était maire de Dakar nu mu partagé suñu suuf ki nga xam ni moom mooy euh, euh, Idrissa Seck il nous doit des milliards il nous doit des comptes yu mu war a rendre il nous doit des terrains c'est un délinquant financier et foncier Khalifa Sall est un délinquant financier et foncier ki nga xam ni moom mooy Amadou euh, Amadou hmm, Ba et un délinquant foncier et financier ki nga xam ni moom mooy Karim Wade est un délinquant financier et foncier donc comment la ñu mën a seetaan Macky Sall bëgg a organiser des élections avec des délinquants financier et foncier qui ont détourné l'argent du contribuable def ay crimes financier et foncier ñu bugg leen créel benn élection jël koo xam ni musul sàcc musul yareel réew mi nii musul def benn crime financier nii foncier yorul fukki dërëm Sénégal yorul dërëm Sénégal yorul xeer Sénégal yorul suuf Sénégal def def ay élection yoo xam ni dañ ko bëgg a organiser ay bandits de grand chemin bu ko def donc refusons ça nañ ko bañ nañ ko lànk nañ taxaw ne kenn du ñu organiser la ay élection Sénégal composé de délinquants financiers et foncier des gens qui ont des comptes à rendre au peuple sénégalais nous refusons dañ koy bañ donc taxaw leen temb ne loolu du fi am tey du fi am ëllëg kenn du fi liquider Ousmane Sonko di fa organiser ay élection ay Khalifa Sall di fa nekk te yoral askan wi ay Idrissa Seck nekk fa te yoral askan wi ay Karim nekk fa te yoral askan wi Amadou Ba nekk fa te yoral askan wi ay Aly Ngouille jaay nekk fa te yoral askan wi dama ne loolu duñ ko nangu tey te duñ ko nangu suba noonu nañ taxaw fu ñu nekkoon bañ faa joge waajal ko ne noq national bi day am noq national balaa mu faa jógee nag ne di leen wax ni man it war ngeen ma euh, di jox di fay samay droit d'auteur parce que y a beaucoup de choses dans cette révolution yoo xam ni man maa ko créé siwal ko te musuma cee jot droit d'auteur noq national ou le news national NN man mi maa ko créé bu ko Sénégal di wax tey maa ko créé la noq national et le news national maa ko indi sama bopp bi la génnee tout le monde le dit gis naa ci respect à euh, rappeurs yi lu mu lu mu tudd ñoom aara ak DG seen groupe bi Euh, Akhlou Brick Paradise def nañ saan bu tudd noq national man nag maa moom loolu sama bopp bi la génnee maa ko créé noq national ou le news national la NN noq national N news NIO le news national loolu maa ko créé sonko ku ko songu sànku maa ko créé yulli wulli tulli maa ko créé donc yi ngay dégg yooyu yépp très philosophique et très Euh, spirituellement nit yu ñuy xalaat yu euh, yu am poésie yu am ay étiphore métaphore yooyu man maa ko créé man maa ko moom malgré que dañuy révolutionner mais damay indi ay esprit rap ci biir damay indi ay esprit poétique ci biir moo tax souvent li may def yëpp day am poésie day am bind donc briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal hein faaya faaya na fépp tàkk jëppeet wurang wang tout ça yooyu yëpp man man maa ko indi ah <laughs> belle fête saa ko sumbul donc da leen joxe droit de aussi da leen joxe yulli wulli tulli yulli bu gaa ñëwee si seen barab yi na nga leen yulli yulli mooy lan ngeen wulli seen poos yi yulli leen seen poos yi lépp lu ci nekk ngeen jël ko bu politicien indi ay milliards lekk leen ko yulli leen seen poche ba mu jeex tàkk yulli poche mooy nga def ko nii ba poche bi dara nekkutu ci nga yulli poosam ngeen dem ci bureau de vote bi nga wulli ko wulli ko wulli ko ba du am benn voix ñu wax mu perte nga tulli maamam donc yulli wulli tulli yulli mooy ngeen yulli poos yi jël lépp luñ luñ leen jox ngeen dem ci bureau de yi ngeen wulli seen maam ba ñu plombé ba du am benn euh, euh, voix bu ñu paree ñu perte ngeen tulli seen maam donc loolu mooy la yulli wulli tulli bokkul ak la fippu farata la jamono jii la fippu farata la lañ nekk la fippu farata la loolu yàgg na trop mu euh, jamono Ablaye Wade am na sound fippu farata la boo bindee Mollah Morgun fippu farata la en 2010 defoon naa sound bu tudd fippu farata la ou goqi national <laughs> yooyu yëpp yu ma créé la le goqi national le nopp national yulli wulli tulli fippu farata la truc et cetera et cetera donc euh, avec l'esprit rapologique kon sometime na gars yi wala <laughs> brigade buub puub buub puub la tudd brigade buub puub BP brigade buub puub la brigade buub puub loolu ci ay ay kii lañ ko ay élément la yu bokk ci opération rëbb dëmm ordre opération rëbb dëmm foofu moo am brigade buub puub